d' accord mu mel ni am na coow loo xam ne tamit euh, judduwaat na fi kii di Wally Seck euh, doom de Paris bi bi mu ko defee coow la fa am mu ñëwaat toog ci beneen plateau euh, sol ay dàll yoo xamante ni ñu bari ci sénégalais yi dañ koo ñaawlu mu tombé woon ak weer boo xam ne ñenn ci nee nañ ci lañuy màggal ñii di góor jigéen yi coow loolu noonu. senegal pour nga tekk da ngay ñeme coow. Mm-hmm. ñeme ñu liggéey la. Mm-hmm. ñeme wax ju bon. Mm-hmm. soo ko deful doo dem. Wally star la star dafay ñeme coow Wally nee na moom mooy bandi mooy ruube ku ruube ñu ruube la waaye gëmuma ne ku bëgg Cheikh Ahmadou Bamba ba ne sëriñ sëñ ci xol leneen da xajul kooku dina doon góor jigéen walla mu jàppale góor jigéen te bul fàtte de Wally Seck bu ko neexoon am 5 boîte mu ne seexlu naa am boîte ci kaw suuf ku gëm yàllaam yegg foofu man sañ naa buñ la tuumaalee góor jigéen ma weddi ko te alquran sax dafa wax ne bu ñu leen indilee wax ju ñaaw ci nit weddi leen ko. Hmm. jusqu'à preuve du contraire. bés bu góor génnee na waalee ma juutal. wala waali génn ne juut. ndax te Sénégal dem neen ba ku am alal tekki am tur. dañuy jàpp ne sariyatul muhammadiya mënut loolu sëriñ siñ gëm mënut loolu benn nga doon faramason illuminati walla nga doon góor jigéen ngir mën a tekki. Mhm. kan moo tekkiwul ci réew mi te tuumaaluñ la ñett yi. loolu yaa ngi déconcentré ndaw ñi yaa ngi gàcce lislaam te yëgoo ko mooy ne yoonu muhammad bii munoo coo nekk jub di liggéey te am alal am tur loolu mënta nekk faaw nga dem ci lobby góor jigéen ngir tekki dara. Mhm. maanaam coloni colonisation ni mindset boobu ñu def ci boppi sénégalais dama bëgg mu dëñ Wally Seck mën ngaa liggéey lislaam ci moom wane ne kii taalibib Cheikh Ahmadou Bamba la lii la gëm moo ko def nii su ko defee nit ñi di jéem a góorgóorlu mbon benn la mbaax fukk la def leen téeméeri mbon junne mbaax bu ngeen dee dama jëna waaye ku tekk Youssou Ndour ñu ne góor jigéen la faramason la yenn sëriñ si mën dara ñu ne faramason leen waale ñu ne góor jigéen la waa léegi kan moo gëm lislaam te tekki dara ci senegal kan la bu dee sëriñ su mag si ñu ne biddaa xërëm ji leen nekkoon léegi lan moo baax kan kan moo baax fan nga mën a amee mbaax Sénégal man ma loolu waaye nag am na ñoo xam ne moom ñu si mel ni marché mag di nga xam ne seen compte yaa leen di dundal bu seen seen compte amul vie duñu encaissé duñu mën a dund ñooñ dañuy bëgg a wax ci doom ju tekk ju mel ni Wally waaye suñu amoon métier ni ma ko amee di liggéey konoon duñ tal Wally ndax man taluma ko mm-hmm. Wally suma ma géwél la man géram la mm-hmm. teraanga rek la ñu war a seq ak lu baax d'accord mais toog rek di jéem a dagg image yu nit ngir nit ñi mën laa seetaan nga am vie bu dee moo la desee ci ponkalam lëmm nga ne youtubeur nga <laughs> ba sañ a woowee sa bopp influenceur xam nga Sénégal da nga ñu ne la influenceur am abonné yu bëri ak influenceur du benn. influenceur mooy ki mën a dugg ci xol ak xataru nit wax ko lu muy gëm te di ko def ñoom nen neen euh, nen toog rek am ay contenu te duñ dugal nit ñi. Mm-hmm. nit ñi la ñuy seetaani mais pas ñoom. yow yaa ngi am compte TikTok bu ëpp doole ci réew mi siwal ma ñëpp di ko topp di seetaan. demal nga def live nga xool ku lay seetaan kenn du la seetaan la nga fay dugal la nit ñi moo ñor nit ñi mais pas nem mag di toog rek di waxtaan ak nit ñi nga xool na nit ñi ko seet bu mu dugal benn vidéo na toog rek wax man damay ñëw toog rek wax àdduna bi di wàcc parce que dama xam mën comprendre ñoom neen génnee image nit ñi maanaam yenn compte yi nii neen génnee image nit noppee wax ci nit wax seen bopp ak seen mbir billaay ñu xam ndaanaan. pënd bee jug rek Ablaye ñu jaawale pël yeeg naar yi. mais léegi mu wàcc. ku ci wone na jàmbaar nga man su ma continué boo fa demee su ma image rek ngay fekk man hmm. kese kese. li ma saf laay wax li ma neex laay wax waxtaan li may yëg mais ñoom neen ko def munuñ ko ñemewuñ ko. Hmm. ku ci am programme bu dox sa nit nga invité nit ñi seetaan nit ki mais pas yow. Hmm. donc euh, du benn quoi waali daal. luñ ko wax baax na. niñ koy gën wax rek. muy gën a dem. star la star wax da ko jig. man pour suma mbir doo faaw ma créer bës balaa bës bi di wàcc ma profité aussi jaay ci quelques éléments récupéré benn neuf ba onze millions tëdd. Mhm. bu bés ba wàccee nga naan ma da ngaa xew maa ngi dund la ma bësoon. d'accord su kii ma yëngalaat donc waale lii la. Mhm. ban jàngat nga def ci taxawaayu Jamra ci ñàkk plainte bi nga xamante ni euh, nee na du ko plainte waale. Euh, aw ci xalaat nag. parce que man maam Makhtar Gueye maa ngi ko war a gis maag imaam ratib bu wakaam dama war a jublu ci jamra bi dëgg-dëgg nag. waaw xam nga jëndoon naa cinquante membres léegi damay ñëwaat jënd yeneen cent cinquante muy deux cent may doxal activité jamra à ma façon. mais xalaat bi ma ci am ak bëgg-bëgg bi faaw ma teg ko ci kanamam bu ko approuvé ñoom ma liggéey leen liggéey boo xam ne kenn mësu koo liggéey. Mm-hmm. ndaxte ndaw ñi bëgg neen ma gëm neen ma te jamra pour dimbale nit ñi rek la aw xalaat ci lu jamra def ndax laajuñ ma waxuñ ma te seetaanu ma. d'accord mais waaye man am naa su may bëgg-bëgg su may xalaat bu ma demee teg ko ci kanam Maam Makhtar Gueye mu baax mi ba mu nangu ma wóyal su bañee ma téye. d'accord mais tamit Jamra nee na li tax du ko def mooy euh, euh, sénégalais yi kenn xamul lu ñu bëgg en fait. wax na dëgg ah Jamra ne yëpp toppoon neen ma tëj ñu tëj mi ñu ne neen ma bàyyi am na ñuy waroon a nangam man daal su ma doon Jamra dootuma tëj man suma programme bi ma am Jamra du tëj. am naa lu ëpp tëj mais 16 points laa war a waxtaan ak Maam Makhtar Gueye tegal ko 16 point na ko lii laa xalaat. ngir Jamra gën a mun a nekk social bi gën a mun a dimbali nit ñi gën a mun a taxaw nit ñi Jamra def rôle am comme médiateur. ndax l'islam kat gëw ma ne kenn war naa mën a nekk soldat di tëjëk ji ci diina lislaam bi gëw ma loolu waaye nag mën ngaa nekk soldat di dajji xoomaatu xol yi di ko leeral di dimbale nit ñi. Uh, financièrement ñuy mën di dimbale seen bopp loolu moom am naa 16 points yu ma war waxtaan ak moom incha allah. D'accord. ndax Jamra tey dafa war a tënku ci diine pour mën di lijjanti yu mel nii wala ci euh, valeur nit ki lay lay lay lay sukkandiku parce que ñu bari sax ñu ngi naan dafa xaw far moo tax euh, mu demee nii. su ko defee daanu ndax li Sénégal du pour jullit Sénégal du réewu jullit mënoo nekk ci réew mu dul jullit ba pare ne da ngay xeexal lislaam du dem Jamra bu ko defee daanu. Mm-hmm. li ma wax nag ma leeral ko ki ñàkk xel jullit ñaa ngi dëkkee Sénégal waaye du réewum jullit réewum jullit mooy ñi gëm lislaam gëm alxuraan te di ko àttewoo ñoo ñooy ay réewum jullit waaye jullit bi mooy ki gëm yàlla ak yonantu kon Sénégal am nay jullit waaye du réewu jullit fu dul réewu jullit nag mënoo ñëw di fa dimbale lislaam ci euh, organisation boobu def déedéet Jamra lu mu mën a def rek mooy dimbale social bi ñay chrétien doon chrétien yu baax. ñiy jullit doon jullit yu baax ñi gëmul jullit ak chrétien yi dund ci normal rek man lii laa gëmmaa ah, man gëwma lislaam société laa gëm. Mm-hmm. Hmm. ndax tamit lii nii beneen yoon bu ko keneen defaatee ba jamra dal ci kawam du xaw a indi ay ay ay ay ay ah jamra bi may jàpp ci wax jama waxoon romb nag ko gën a wax lu gën a ñaaw loolu mais jàpp ko <laughs> loolu moom du problème am na ko taxaw ne sëriñam moo bind yàlla jamra ba ko ma ne neen jàngalee laalante ci jumaa yi maa ngi xalaat ñu yóbbu kàppoot ci église ci jumaa ya ñu ne ma kaay tëdd kaso donc su ko jama def su ko jamra defee du du benn yoon du njëlbeen de defati la rek jamra yàlla topp leen dara lu ñu def baax na